mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuyu nañ leen am kontaan ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne ñu ngi fii kër champion bi Serigne Ndiaye numéro 2. démb moo bëre woon ak Cobra fële ca stade Jom Iba Mar am ndam lu rëy boo xamante ne amul benn werante tey nag ñu ñëw seet ko ngir bëgg waxtaan ak moom. lu bare bare ci wàllu làmb ci bari na loo xamante ni gis nañ ko ci moom gisaat nañ beneen Serigne Ndiaye 2 gis nañ encadrement bi nga xamante ne waa Fass encadré nañ ko indi ko démb. ginnaaw loolu dañ koy bàyyi mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wel waxtaan bi mbër ndam neex na la maa ngi lay nuyu bu baax di la siyaar. maa lay fay bu baax di sant yàlla bu baax. Hmm. ñu ngi si yoon bi sant suma ñaari hmm, bi. di nuyu bu baax waa suma équipe waa Gidi hmm. euh, teel micro bu baax. suñu bopp suñu bopp tawaagee suñu bopp Abass Ndoye. xam nga sumay entraîneur Père Seck Père Guèye Camara Père Ibrahima Mbaye. xam nga Socé xam nga di nuyu suñu kati bu baax. di ko ñaan mu yàgg fi la tànn bi ak seen amuwaat. di nuyu waa Médina mu juddoo Yorof màggee fi. Hmm. xam nga waa Golf waa Ndar waa Singante yi di nuyu sama sama mbokk séeréer waa Njaafat yi. Hmm. xam nga Njaafat séeréer Njaafat Soose ak son kii village yi yëpp di waa Gueule Tapée. Hmm. xam nga di nuyu nag sama maire dëkk Assou Ndiaye. baax di nuyu gars ma jàppale yëpp. Zal Bada Ousseynou moom Samba. xam nga Obala xam nga Badales xam nga Papa Diawara Sopé Galas xam nga di nuyu suma gaayam daal. Hmm. démb du ñu gis ni làmb ji. promoteur bi xeex na ci ba sonn. pour pour sauver bis bi. ñu wax ko mu ne mbër yi dañ ci daj ay coono am na ci mbër yoo xam ne sax dañu jaay seeni nag ngir def ko ci journée bi bi nga jékki-jékkee dégg journée bi mu ngi laam-laame ba xam mën naa am wala mënut a nekk. sa xel ci lan la dem. journée bi kay moom bu amoon moom mooy dirigeant sama valise dëgg yàlla parce que préparer combat dafa métti bu ma jël benn combat bu la jógee plus de deux ans bëri yoo nga bëgg ñaata jël combat même pas vingt combat ñu wax di la wax annulation moom bon dina métti trop sama boor quoi. Hmm. waaw mais sant yàlla bu baax. di nuyu suma adversaire nag bu baax Cobra di ko félicité wax dëgg yàlla champion la mbër la xam nga dafa li moo def ci làmb yëpp xam nga làmb la te da ngay am nga ñàkk wax dëgg hmm. mbër bu am respect la di nuyu entraîneur tamit Babou Diallo bu baax hmm. xam nga di leen bu baax a baax daal wax dëgg hmm. di ko ñaanal boo amee beneen combat bu dul waa équipe yàlla may ndam ñu jékki-jékki rek gis la benn moment nga départ dugg si stade moment bi nga ñëwee duñu gis beneen Serigne Ndiaye mais teewul bi nga ñëwee yaa ngi concentré wu am confiance nii da ngay daan Cobra loolu lan la woon dañ la ko dee wala ci mystique nga ko tegoon wala lan la. noonu lépp liggéey la rek wax ci sumay coach su ma tafaagee teg ma ci ay loxo yu baax macha allah. Hmm. maanaam samay mbokk ñu boggum loolu macha allah ma jaral lu ne. Hmm. sumay xaar sumay am du jàmm. xam nga su ma tawaagee yow ma teg say loxo yu wóor amu fayam. Hmm. di nuyu sama maa jaraaf baax a baax. Hmm. xam nga su ma Joseph Diouf ca Ajaay ma ngi nuyu bu baax. Hmm. Fabrice Alous depuis la France mon père Ali xam nga ñoom coach Max ma ngi nuyu bu baax coach da am ne ni ëllëg di mun daan mag daan say morom daan daan baax a baax. Cobra bi mu dugg see démb gis nañ mu ngi ci forme. Ah, super forme mu ngi woon ci état bu baax. non wax dëgg yàlla man man dafa ma bett nag vraiment. man ma hmm. bett waaw macha allah liggéey na. la bettee liggéey na bu baax te borom jom hmm. bi mu si meekoo tiitoo. non ma tiiti làmb nag. tiitoo ma tiiti ma ko doon gisee ak ni ma ko gisee ji kii liggéey na et puis dafa dafa nëbbatu trop làmb ji. Hmm. dafa trop trop trop xam nga. mooy wan gi jaral na ko xam naa ne da nga coono si làmb ji Hmm. waaw dañ ay coono yu métti métti. noo def ba xam ko. waaw non si parce que xam naa borom jom la. Hmm. parce que ay communication xam na borom jom te ku fonk làmb la. Hmm. waaw ak situation fu mu moom. xam nga làmb dafa métti. nga nekk xale ne am làmb. say waajur teel a génn àdduna. xam nga. nga nekk soutien de famille. xam nga sa gars yi ànd ñëpp gisoo kenn ko jàppale. position dafa métti bu baax. mais mu koy ñaan tolof tolof yëpp. mu génn ci jàmm salaam ba yoon laa moom leer. bàq si naaw maa ngi ñaan loolu ak xol bu sedd bàq si fàllu. nga féete ndijoor. Hmm. lan nga xalaatoon ni war ngaa mën a bëreeg moom ak lan nga bëreeg bi ni ma liiree combat bi rek. dama ne man xamoon naa ne daf may song. xamoon nga ko waaw daf may song xam naa ne daf may lu muy dëgg si moom. Hmm. li mu bëggoon mooy song mu gis sama tànk la bëggoon. Hmm. mais man si tey prêt. xam nga di nuyu général bu baax général Fass bu baax a baax nag. Hmm. wax dëgg yàlla parce que depuis combat mu taxee ba léegi su dana ci ay coono yu métti métti métti Baara Ndiaye di jiyee. Hmm. xam nga ak suma gars yi suma boppkat yi ma koy nuyu bu baax a baax daal. Hmm. wax dëgg yàlla. nga bëri ak moom. waaw la rek ay dafa sifflé match sama garde ay pied droit lañ taxaw moom mu ngi mu sànni benn gauche mais xam naa ne gauche mu sànni ñor ko xam nga tànk la bëgg a ñëw. ba ma duggee nag dama ko boole ak ko ñaari uppercut ak crochet. xam nga moom mu sigi di indi xeex mu wàcc remplacé waaw si am na kuy dal na ko. am na yu daal nga ko dóoree mu siggi. Mhm. nga mhm. jugee dafa mel ni dafa yomb ci ci yow trop. non non pas yomb pas yomb xam nga làmb des fois làmb mooy demee noonu. Cobra mm, Cobra champion la. Mm. xam nga làmb mooy mm. allah pare na ko ci ma dem ci kawam. xam nga du jaaxu sam xam nga du ñàkk mën bëreem Hmm. macha allah gànnaaw te gis naa waa Pikine yëpp amoon nañ ko wax dëgg yàlla. Hmm. te hmm. ci am na lu ñu seetlu démb ci ci ci làmb mooy dañu seetlu ni Serigne Ndiaye ñëw na ci làmb ji mais dafa wéet ci làmb ji remarque boobu amateur yëpp def ci làmb gis nga ko yow. waaw waaw waaw waaw waaw maanaam wéet boo déggee wéet maanaam mooy tey lu lu mu ñaax foog ñu wax ko tey man lu ma mënu ma am combat. wéet bi mooy Serigne Ndiaye àndul ak mbëru Fass yi ñu yaakaaroon ni dinañ ko indi Serigne Ndiaye indiwul benn supporter ci làmb ji. waaw waaw non si mooy fa laa jëm ak yow. Hmm. te quand quand daa mbëru Fass xëy na dañoo amul jot wala nekk seen affaire seen entraînement ak mooy yëri mu ñor sama entraînement man saa yu lépp solo mooy ma am ndam na ma ndam sedd guy. xam ne la alamin. Hmm. samay supporters nag ak loolu mu ngi des si autorité Médina yi démb loolu moo ma jooyloo démb. Hmm. waaw. moment bi nga daane loolu nga doon parce que dama dama sama kër huit heures ba vingt deux heures mooy génn sama kër billaay wala koñ maa ngi fees dell boobu dama ko xaare billet jël naa sama oto jaay si combat bi ngir jaay sama bien si combat bi pour am ndam parce que si dafa man dama doon compétir pour pour su ma combat bu yomb ci man. Hmm. Hmm. mais. nga am nga am combat saa gisoo kenn moom day taxaw ne la mbërëm benn bërëbu kii nii te supporter yëpp ci yow la yëngu boobu. ana autorité Medina waaw mooy li ma la wax moo fi ñëw yónnee fi benn amee Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Ba moo fi yónnee. Hmm. te c'est pas la première fois. c'est pas la première fois. Bamba Fall nag. ndax Bamba Fall moom wax dëgg man ay mbir man comprendre ma ko. Bamba Fall mbër yi ku ci bëree da lay jàpp. ah ñoom day jàppale mbër yi ñoom man sama boor ak samay supporter samay mbooloo ñoom remarqué nañ loolu. est-ce que du da problème. ma man man mën naa am ak kenn problème man fii laa juddoo fii laa fi la màggee wax ñu ne Serigne Ndiaye da nga cool da nga cool da nga cool ma kenn problème Bamba Fall du ma am moom nag. Hmm. sama man bu dara sama kilifa la ba problème la a am moom. Hmm. man du ma dem fenn. Hmm. du ma wax kenn du ma fëgg bureau kenn mais am naa droit am combat nga jàpp comme ni ngay jàppale yeneen mbër yi. ni ngay jàppale ñeneen mooy yoon. parce que fii ku maintenant ku fi dugal ndam dugal naa macha allah. Hmm. damay compétir dama si maa si mbapat yi may bëree combat di bëri daan mais rafetul mbooloo mu toll nii ma dëkk fii Iba Mar tout près. Hmm. sa waay benn bologu ticket. Hmm. benn bologu ticket laa jënd dugg ci stade bi benn bologu ticket benn bolog benn jënd ay six bolog ay sept bolog. sa waay dafa ñaaw. loolu est-ce que convaincre na yeneen promoteurs a convaincre ñëpp mais ku ma xam man si mobi si nga ma xamee. comprendre hmm. mais tamit dëgg yàlla combat day tool foo xam ne lamb dafa métti moo defal sa bopp lépp mënoo am combat sa regroupement ak yu bëree bëri bay taxaw sa kanam xam hmm. a baax hmm. parce naa jàpp na ci a baax baax suñu papa loo xamante ni gars yi dañoo ne loolu mooy charte mooy yoon ñu maintenant bu fekkee dañ yaay njiitu maintenant non kilifa boo géré ñëpp da ngay géré ñëpp nga yemale ñëpp Mm-hmm. lu mu ñax mu ñax ma su ma amee ndam du ko yóbbu fongale bi du ma ko yóbbu fenn maintenant laa koy indi fii mm-hmm. lu ma gudd gudd maintenant laay fanaan fii mm-hmm. laa yeewoo fii laay defee lépp samay waajur fii lañ dëkk am fi ay titre foncier am fi lépp sa waay donc war na mu gën a rafet kon ni ma déggee nga waxee mooy daa mel ni dañ laa bedd ci yëf yi non non loolu ñoom la man incha allah muy neex muy naqari damay sax fi sax incha allah daan nga Cobra fan nga jëm non man maa ngi maa sama maa ngi sama entraînement. jaay li ma fan nga jëm. dégg ma de ma jëm fu ci. dégg naa ci stade bi am na laaj dégg naa am na koo laaj. ka la ah, xaw ma. ah yow ñoo ko ah, man dékkuma la micro dama ah, dégg ñu ne Serigne Ndiaye am mu laaj. moo tax de man tal tal moon dara parce que eh, sama mbooloo bi daan tal. et puis laa ma ngi jeex nag si xeex ci biir xam bu du isaat lañ taxaw ba lamb di jeex. billaay wala nag ñàkk bi bu dugg isaat bi loolu neexul si xol quoi imagine huit heures suba ba vingt deux heures nga taxaw buntu kër mbër pour bëgg dugg esaat amoo ay borom du du du. mbali dañ supporter mbalit dañ mujjee dugg. waxuma la mbalit sa saa waay dafa ñëw sa waay. bilaay walaay actuellement fan nga jëm ci làmb. actuellement actuellement wax dëgg yàlla saa moom. doo nga bàyyi suma staff baax a baax daal. Hmm. mais su ma amoon lu ma gën a daal man. Hmm. ñu jox ma ko si ponkal yi ko am bëri ñoom. ponkal yi ñooy kan. ah boo ñëwee deux mu ngi fi. non. la déggee deux mu ngi fi. non ci day xam lekkam ñooñu moom duñ say morom. Serigne Ndiaye ñooñu duñ sa morom. booy ñaar deux. jàppaa coli bi damay dóor micro bi kaasu fonde bi. Hmm? non laa ñeneen laa ñeneen. est-ce mu ngi ci contrat booy ñaa ngi lijjanti moog Balla Gaye. laa moo loolu après safale safale la yàqul dara ku ne am nga droit xanaa wax ki nga bëgg ba dee <laughs> ah, li li di wax rek borom bikitu bëgg boo gis. boo xaaree dégg ba. magasin nga ci fekk. wala wala la dëgg am nga ci soo. ko ma. non du sa morom. amul ko ma mais amul ko ma combat la yii ay combat rek mu fi toog kan lay nangu lu bëri na wàcc bëri booy benn wala ñaar. Hmm. ah gën di ana balance kër gi xaaru kenn kër gaa ngi taq. Jordan. kan Jordan. non loolu moom loolu moom mooy sori quoi. bëggoo Jordan. loolu sori da eh. koo xeeb. yàlla tere Jordan di champion. <laughs> Jordan ngeen di Jordan numéro non man dama laaj sama choix man. bu de woon téléphone léegi na la booy jël avance bi da ngay kontaan. waaw merci. Ah, Jordan bu la woowee nag lu tax booy bëggoo moo gën a. ku ne am bi la gën a. ah, ah. yi moom fi mu toll nii sëriñ Ndiaye yéeg na ko quoi mu ngi ci kaw. non Serigne Ndiaye yéeg na moo la Serigne Ndiaye demul fenn comme la rek comme bitti la lamb ji guñ sax. Hmm. dafa guñ dara. dafa guñ dara ñun daal suñu entraînement la ñuy gérer rek sama papa Tafa Gueye moo koy gérer staff sama papa kañ lañ la fas yéene gisaat stade nga ñëw wàcc si. li loolu mbaa ku dëkk mbër wala nga ñëw tooyalaat xaftaan. waaw ah, man mu ñu wax léegi-léegi dama si mos a bëri incha allah non problème damay compétir fu ma toll. gars yi ñu ngi lay woo. diggante démb ak tey benn promoteur woo man kenn mu woo man Tapha Gueye ñu woo. maanaam ku ma woo man ku woo ma may sax nga yëgale. Hmm. waaw looy wax ak man. même bu ñu la wooyee nga ne woo perte. ah mais c'est normal mooy sama kilifa mooy sama Ah, mais des fois mu may la sax mu ubbil buntu yi. non man lekk tëdd na jugal sangoo lii jugal lekk lay gérer la des moom du ma gis du ma dox hmm. Hmm. bu baax xam naa li duufandoo ci nag bi. Hmm. xajandoowul ci cin bi. waaw si si di la remercier itam bu baax a baax daal vraiment. di la sant bu baax di la gërëm parce que liggéey rafet na xam nga. mbëri bu nga yemale. waa Gambey itam baax a baax. waa Gambey. suñu baax Cheikh Sumbul xam nga Aziz waa Kolda yi. xam nga li nga xamante mooy grand Nokia. parce yombul. nit xewle. Hmm. am problème oto am na oto mais dafa am oto làmb nga jël oto bu cher da nga am yóbbu si làmb ji yaa ngi defal jàmm. Hmm. comprends nga. Hmm. sama maire dëkk nag Asou Ndiaye. mention spéciale. parce que soo ñaari bus mais waa Nja waa dugg stade démb. waaw. kenn dugg. Medina ay vingt cinq quinze gars laay compter. man de trois laa gis ak man muy quatre. waaw ñoo xam ne <laughs> gis naa ne <laughs> ndeysaan délégation Serigne Ndiaye bi daal moom laa doon wax sama benn waay ma ne ko Serigne daal gisuma dara ñu ko fi indi ak yow muy quatre. billaahi monsieur sama maire dëkk parce que gis naa affaire jàpp na si biir bi macha allah pour waa Ndiaffate yi xam nga jàpp na si bus yi ak lépp. Hmm. xam nga dañ sant sama gars yi may àndal ñëpp nag. ba ma seen fay. Hmm. wax yàlla di leen sant bu baax di leen gërëm. wàllum hmm. dafa metti mënoo di entraîner. lekk tëdd na ba nga gérer di gauche et à droite. Mhm. mention spéciale ak Cheikh Ahmed Tidiane Ba. man du ma politique ma nekk ci politique mais ku ma defal teraanga dama koy wax. Mhm. wax dëgg yàlla mhm. di métti moom moo ñëw secondé. sama commande njëkk nii la woon. moom moo ñëw si guddi dépanné gars yi. bi tam mu ñëw dépanné gars yi maanaam dafa métti. te ñëw na fi ñu ko soxlaa daal. waaw fi ñu ko soxlaa. la ñëw. te bu ñu fàtte àdduna lépp day weesu. te suba kenn xamul liy xew suba. bi dafa jar a bàyyi xel. Mm-hmm. waaye bu yore ay ndaw ku nekk di daan doole di dama ko ñëw dangay fexe nga moos ñu yem la ñëpp ci yàlla tax. Mm-hmm. même boobu mënul sax kenn forcé wul nga def mais y a des bons gestes y a la communication. Mm-hmm. dafa am solo moo a nice. ma écrit xam nga Baara Ndiaye di jiyee ma àndal Sangomar xam nga. ñoom Pawa ba Baye Abdou Kabandoski. da nga ko war a ñoom Zal Bada Ousseynou xam nga maa set seetlu ñu di ñëpp. bu dëgg yàlla sama mbokk séeréer yi may jàppale nag ama seen fay waa caalaan waa ñoo joor jonwaar baasul baasaar hmm. xam yëpp. séeréer bu déggul dara. commune Ndiaffate yëpp am na seen bàyyi sànni xeer yi. commune Ndiaffate yëpp na seen dégg nga séeréer sama boy mafia bi nag boy Vizcay. sama boy mafia booy hmm. hmm. sukkal nii sukkal ci kanam. sama boy yi gis nga leen démb. Hmm. huit heures lañ nekk suba. booy yow lan nga ci supporter man supporter ah ñii ñu ngi naan man président supporter laa. ku nekk ngi wax daal wante man supporter simple laa si comme ñeneen ñi rek. Hmm. waaw démb fan ngeen nekkoon. fii lañ nekkoon fii lañ fanaan sax. mais duggal ah man man amoon naa ay ticket yu ma jotoon garder. wante mais mënu ma woon jox ticket yi. Hmm. waaw loolu la quoi man am na ñu ma jot a jox wante man dama amul benn supporter kenn bëggu non yi ñooy wax leen neex rek supporter yaa duggul rek. lan moo tax duggoo leen. ah lan moo tax duggoo leen. Ah, ah. moo jaar woon yoon nag. Hmm. waaw. léegi lan ngay wax autorités yi dëkk Géejo ñu dëkk fii Medina. autorités yi dëkk Medina ñu seetaan ne comme ay Bamba Fall nii. Hmm. ñun comme ñun mere nañ ko trop si affaire bu ñu def nii. waaw. Hmm. est-ce que dem ngeen ci moom seeti eh, dem nañ si moom dem nañ si autorités yëpp. waaw ay Seydou Gueye dem dañ ñu faussé dañ yaakaaroon si ñoom ah tamit mooy loolu. non ba Seydou Gueye yaa ngi na si jàpp sax moom. Hmm. moom mu ne na si jàpp. Ah, wante moom dañ yaakaaroon si moom ren quoi ñun fu ñu ko gënoon soxla mooy bu démb bi moom. Hmm. tike ñu daan joxe demba lañ ko gënoon soxla ndax gis nga mbooloo bu nekkoon si buntu kër gi. Hmm. démb gis nga mbër bu muy def stade sax la. bu muy def ndax mbooloo bi. démb ñooñu ñëpp suñu duggoon stade comme mbër si jour combat bi dañ koy utalaat combat. barki alxuraan. mais yéen a ngi waajaat beneen combat ko ngeen ñëw en masse. kon suba suba rek dañuy dañuy bëri. suba suba rek pare nañ barki alxuraan. am na solo ñu ma mbër nañu nekkal si suuf ñu ñu nekkal ko si kaw. kese. waaw. dafa leer. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax di di jégaluwaat encore nag. Hmm. xam nga suma gars yi dafa doon dañoo defoon wàññeeku suma ginnaaw ku su mel ne hmm. Jabel Tuun. Hmm. xam nga Ousmane Ndiaye. parce que suma kilifa woon dafa ma ñaanal bu baax dama taxaw. muy Pajara. Hmm. yaa ngi ko xaar ajana waa guddeem alhaji abdou salaam guddeem yaa ngi ko xaar ajana hmm. di sant kilifa yëpp kii ku ma ñëw sama xaritu sa yi hmm. sama sama xaritu yaay yi maa ngi sant ñëpp ñu bàyyi seen yite yëpp ñëw fanaan ay fan ama seen fa yàlla yàlla defal sant nag ki nga xamante ni mooy Samba Ndour Touba maa ngi sant bu baax a baax a baax a baax dinaa combat bi Aziz Wilane Magaye seen baax gis naa ko gis naa taxaw bi ak seen Cheikh Tivaouane gis naa taxaw bi baax baax baax baax baax dana yàlla defal jàmm bu baax a baax baax wax dëgg yàlla di la nuyu itam bu baax na wax dëgg yàlla di cité de waaw mu fi cité de Dieu. waaw maa ngi nuyu waaw golf yi ñoom san maa ngi leen bëgg baax di leen mm. ba mm. di leen nuyu itam bu baax di kontaan si yow. di leen nga bàyyi jooyloo mbëri kew jooyloo guy gi da war a jooyloo sama copain quoi. <laughs> guy gi sama xarit la ma leen di jaajëfal bu baax mbokk yi Serigne Ndiaye 2 la ñu dalaloon fas yéene waxtaan ak moom lu bëree bari ci làmb. waaye nag dañoo tardé ndax guy gi dafa war a def open press léegi nii ci kanam te xam naa ni waxtu bi jot na da leen di jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf